saraax la ñuy def ci xew xew làmb tey fekk fa Modou xarañ loolu roi des arènes ma waaruk énergie sampal ab objectif ñetti objectif la waaruk énergie sampal Modou xarañ lu moom le roi des arènes parcelle bëgguñu mu ne jot naa couronne bi rek damay tëdd di nelaw li ñu bëgg mooy mu yokk cere dolli ñeex gën a baral liggéey ba gën a metti liggéey ba ndax ay objectif a ngi nii yu koy xaar ba ca njëkk mooy combat bi nga xam ne taxaw na ci digganteem ak Ama Baldé bu ndaw ne ko duma sa morom ko ca jàpp yu njëkk daan ko ca daan yu njëkk ya daan Ama jël bu rëy mooy objectif bu njëkk ci bi waaruk énergie sampal xarañ loo beneen ba mooy Balla mi ñu jàpp ne bête noire la daan ko ñaari yoon mu fexee lijjanti mbir moomee bu jógee ci Ama Baldé day jublu ca Balla Gaye 2 lijjanti mbir ma ñaari defet yi mu am ci Balla Gaye 2 mu raxas ko ba mu set weec troisième confrontation entre Balla Gaye 2 imminente ngir Modou Lo mën a raxas loolu ba mu set troisième objectif ba mooy record bi Yaxya Jóob Yékini def ci couronne bi mu daal def lu ko raw at yi Yaxya Jóob Yékini toog nekk roi des arènes mu romb at yooyee ñetti objectif ne ba mu duggee ci làmb ba léegi daanoogul ndax bébé saalum mooy ki koy njëkk a làlloo suuf est-ce que le 8 mars franc dana dégg mu ñël en tout cas diggante boobee yàggatut le 8 mars lañ ko fas yéenee leeral la leeragut ba léegi mooy xiiroo baak ngaayoo bay dox ci diggante CNG ak arbitre ya diggante arbitre ya ak CNG mu ngay gën di metti di gën di compliqué ba grève bi amee ñu ne woon week sans sifflet Thierno Ka chargé de la communication bu CNG tontu na fi week-end sans sifflet am des bëggu caa xóotal bëggu caa ndax ba léegi arbitre la ñu guuxoon yàbbeeguñu ko démb ca père Bécaye dajale ñuy wax seeni doléance ñoom dañoo jàpp ne CNG fulaalu leen faydaalu leen ndax grève bi bañ ko yëgalee waa CNG président Alioune Sarr daf ne na ku nekk jël ay responsabilité rax ca doole ñu dem grève woowu ñu leen ngir négocier ñu ne dañ leen di auditionné loolee bokk na ci li leen gën a naqari ba tax xalaatuñoo dakkal seenub grève ñoom arbitre commission de discipline et de règlement bu CNG wóolu na leen ngir auditionné leen ndax danañ leen sanctionné déet tontu baa nga ca kanam diggante CNG sa parti camp sur sa position arbitre yi kontaanu ñu ci CNG CNG yoon foofu dañuy passer à l'action administration bi Diop membre CRG bu Kaolack moom indi na ay kàddoom ci mbir mi la mu xamle mooy tànk ministère bi sampul ab CRG ci Dakar coono du fi jóg Dakar warta wekku ci CNG mais dafa war am CRG waaye CNG bu bëggee yor région yi yor Dakar day gën metti arbitre yi li xeex di ko jooy ci wàllu assurance lu jaadu la bu nu jàllee ci lit sans frappe galaa ba jilaas Obali moo ko jël ci kanamu Joos moom Obali gannaaw ba mu jëlee final kanamu ordinateur bu Ndiaafat village bu kër Waali Ndiaye waa jam bugub ñoo fa mise bu dee ca Linguère Ahmed Dem ak Valdo ñoo fa war a jàkkaarloo le 8 mars fa ñuy jeexale mooy ca Tigo xaritu yaayam gannaaw ba mu bëree keroog ca digganteem ak Boy Dakar arbitre yi dañoo njort ne da saaga loolee la wax jàpp ko daal di koy bind ca rapport ba loolee moo waral CNG nangu licence Tigo xaritu yaayam ba léegi jotagu ca jërë ngeen jëf mbokk yi li moo li gën yéenekaay bi ñu leen jox dig daje ba ëllëg incha allah